dal leen ak jàmm ami site internet net bi tv li gën a fës nga xamante ne rek moom ne rek ñoom nekk ci nguur gi jamono ji daal amatoon benn yoon xel mu dal ngir amal sax seen déplacement yu mucc ayib ci biir réew mi wala ci bitim réew ndax ñenn ñi nag dañuy préféré di làqatu ci ginnaaw mi ñeneen ñi nag préféré sax daal di jël ab lieu bu sûr boo xamante ne rek mu ngi mun fa amal nag seen i meeting waaye nag mbir mu nu mel dara wundu ko rek lu dul làqatu nag ginnaaw askan yi mere ba futtu rek jëmale ci ñoom rawatina ñii di patriote yi nag rawatina tamit ñi nga xamante rek ñoom ñoo bokk ci parti bi di Pastef te Ousmane Sonko woon koy jiite ñoom nag jamono ji la daal di xam ne ñoom patriote yi nag bu baax seen campagne ginnaaw rek ba ki nga xamante ne nag moom mooy Amadou Ba nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar mi nga xam ne dafa namoon amal ab meeting niki 9 décembre fi nga xamante moom ma ca Asner ci xolu banlieue bu Paris waaye nag jamono ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy influenceurs yi activistes yi ak képp koo xamante ne rek militant Pastef nga ña ngay pare rek pour organiser wu loo xamante ne rek. dinañ saboté bu baax boobu les rencontres ñu fàttali leen nag kii di Amadou Ba nekk premier ministre moom moo nekk candidat ci élection présidentielle ñu dem ba ci atum deux mille vingt quatre bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaat yeneen info